avocats yi lan lañ mën a def je pense qu'ils ne peuvent pas non plus mën a def mooy que euh, déjà lu ñu wax ni mm-hmm. euh, ku am xel ku xam xel euh, parce que état procédure ñu ngi ci procédure judiciaire ku déglu avocat Ousmane Sonko amul benn werante cest à boo demee procès nga ne viol menace de mort le juge est tenu de démontrer il est tenu parce que c'est des faits c'est, c'est des infractions donc euh, bi ñu discuter keroog nee naa la loolu moo gën a jafe ci affaire jugement prouver tel fait tel fait tel fait tel fait tirer une conclusion mais aujourd'hui ku am xel la conclusion c'est que Ousmane violé wul deful menace de mort mais ça c'est une démonstration évidente que li ñu ko doon accuser amul le juge ne peut pas Euh, mënul euh, li taxoon nga jóg amul da ngay dem wuuti benn infraction imaginaire c'est ça qui est grave dans la justice que dans cette décision de justice là nga indi benn infraction parce que procureur dafa xam ne procureur bi xamoon na que y a de viol xamoon na na que y de de menace de mort comme il l'a dit euh, tout à l'heure ils ont trouvé un moyen de glisser une infraction Et, et pour moi, c'est une décision de justice très discutable et peut-être même que, bon, c'est pas fini. Parce que ça, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Euh, gis nañu fi cas Karim Wade c'est un cas d'école. Khalifa, c'est un cas d'école. Sonko, c'est le troisième cas d'école. Il va être privé de la présidentielle. Euh, c'est trois cas de figure. yi nga xam ne acteur politique war nañ ko war nañ ci jàngat. bon maintenant la la décision pour man euh, wax naa ko sànq euh, il a peut-être les meilleurs avocats du Sénégal Ousmane Sonko na leen na leen na leen na leen jox confiance parce que ils ont démontré que c'est un euh, c'est c'est comme ils ont dit une commande politique c'est une manœuvre politique maintenant il faut que ñoom qu'il Ousmane am confiance ak ñoom pour mmh. poursuivre mmh. parce que la question de fond c'est l'État il y a quelqu'un je ne dirais pas le pouvoir politique il y un commanditaire et ce niveau là Ousmane ko mënul mënul euh, mener bataille boobu avocats yi mën nañu mener euh, débat boobu pour démontrer que y a un commanditaire mm-hmm. ah c'est des procédures euh, comme ni ñu ko waxee ñoom wax nañ ko sax que mënuñu toog ci presse bi di wax lu ñu nar a def il y a un problème de mener pour aller au fond pour voir le commanditaire pour voir les implications parce que lu ñu wax c'est clair c'est-à-dire les conséquences de cette affaire là le nombre de morts le blocage économique les pertes d'image du Sénégal oui comme ça on dit que bon loolu yëpp viol bi amul infraction bi amul et c'est terminé l'essentiel c'est que Ousmane Sonko soit en prison hmm. et je pense que sa avocat yi en tout cas Ousmane Sonko man li mu koy conseil qu'il fasse confiance à ses avocats maintenant sur le plan politique bon Pastef ak Ousmane Sonko aussi il faut qu'ils se qu'ils qu'ils ñu xam ne que ils sont dans une nouvelle étape hmm. on n'est plus dans l'étape du procès le procès est clos maintenant il y a la présidentielle hmm. en de 2024 euh, dafa war a gën a dal gën a utiliser euh, en tout cas appareil politique am réfléchir parce que euh, pour man euh, ça peut-être ma terminer ci foofu les acteurs politiques dañu war a wax ak président de la république coow li yëpp lool coow nañu coow Karim ñu ngi koy jéem a coow nañu coow Khalifa ngi koy jéem a régler il faut ñu def ko coow politique pour wax ak euh, pour wax ak euh, président Macky Sall